Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la conférence renouvelée, merci de vous des like, merci de vous des abonné, merci également gars de baisser des commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Bok sénégalais, hein, fait folle maintenant 14 régions du Sénégal, Roukourouha, di Gorgorha, di Ninglène, di Djadjefoul, ni nek également qui est l'hôpital et qui carite du février, yalla suñu borom fëgg sen bop ngeen rek jam ñi nek ci kasso yi ngeen xamne aussi erreur judiciaire gi ñeen ñi deful mo fa yobbu suñu borom génn len fa delawat leen seen njabot ñi deddo aduna suñu borom xar leen adjana fi daw ci gaay té yéxé ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu actualité nous ñu voir yéene donc moi, Nabi Keita wax li mu wax Sadio Mané ci Coupe d'Afrique bi Sadio également à deux pas de l'histoire et également Malick courtisé par ni euh, nga donc club ou mag Nous faisons indi ay leral lata bobu na gay yi di len fàttali encore une fois ngeen bës ci lien bi dem seetaan ci Baba Show li nga xam moy Gegen pressing de Jürgen Klopp ñi bëgg xam nan la Jürgen Klopp di entraîner lan moy Gegen pressing kan moo créer nan la Jürgen Klopp doon jouer ak Sadio Mané comment Sadio Mané a réussi également à s'imposer du côté de Liverpool loolu di ngeen ko xam xam aussi Liverpool na lay jouer ba léegi ki nga xam ne Gennaro Gattuso nee nak ci waxtaan bi na waxtaan ak joueur yi mu nak nag mo bëgg ñu nekk ab njaboota ah, nekk ab famille waaye famille bo xam gay yi dañuy xulo parfois dañuy xex mais tamit dañuy diggé waxanté dëgg sa su nekk et que bu ñuy xeex ñooy xeexaw na bu ñu ñooy àndandoo dóorandoo xàccandoo loolu la daal di wax Zinedine Zidane gars yi nag selon Mundo Deportivo waa Marseille dañ ko wone ko dañ ko bëggoon a Olympique de Marseille Zidane da leen pour l'instant ni moom daal mënut a ñëw entraîné Olympique de Marseille loolu daal la ñu wax Gennaro Gattuso également gars yi wax benn anecdote nee na moom daa mu nekkee joueur bu doon perte benn match ah da doon yàq de fu lu mu fekk ci li nga xam vestiaire da koy kaj yi mais nee na léegi da ngay gis joueur boo xam ne dañ koy gagné muy muy selfie di vidéo quoi nee na loolu moom mënu ko comprendre loolu daal Gennaro Gattuso loola daal di wax Lionel Messi bougé ou wul ak Inter Miami day mel ne équipe là ah gis day mel ben équipe la seen finale bi ndeysaan ah dañ ko parce que il n'y avait pas la Pulga mon woon fa pour jàppale leen donc Messi bi nga gars il était un spectateur mais il n'était pas seul parce que ki nga xam ne Zinedine Zidane mi ngi ah, ak David Beckham toujours mais Zidane ñëwoon na parce que Zidane aussi c'est un ami de Beckham nous joué nañ du côté du Real Madrid et Messi également On est boo au ne il est très apprécié par l'entraîneur français Messi malheureusement donc démb qui n'a pas pu donc jouer et qui xam moi donc ba Nuno Mendes malheureusement booy bi gañu gaañu ñoo commencé noonu dafa war a ko war opérer te opération bi dina tax mu tok ñaari weer du jouer booy bi talent bi mu am gañu gaañu commencé ko commencé ko sonal dina manquer lool lool lool nag li nga xamné moy Paris Saint-Germain parce que booy bii ni au top de sa forme non club bu nekk mën na fa dem jouer ki nga xamné na gaay moy Eric Garcia mom nag dañ ko aal du côté de Giron mais mi ngi def ay match yu reuy reuy jamono ji ba tax na sax Barça mi ngi yakar mu continuer ci même dynamique bi nga xam ne déwén dinañ ko mëna jaay ngir mën ci am koppar gu bëri Barça mën a def ko par ci gafam kii na nga xam ne mooy donc qui hein, le l'attaquant donc euh, ivoirien du côté donc du Borussia Dortmund dellusi na ci li nga xamné ne nag donc cancer bi mu am néna cancer bi nek na lu ko métti mais daaw lañ jël championnat beaucoup ko gën parce que nee na boo amee da nga xamné ne yalla mais des défaites bi bi ñu am daw néna suñu responsabilité la quoi ki nga xamné nak moy Victor Osimhen le phénomène de la Série A mom dem ba mu gars célébré wul hein donc démb ba mu dafa won gars né ne dafa mer quoi donc gars ñoo doon célébré mais mom dafa ñëw rek resté calme Malick Thiaw le joueur allemand d'origine sénégalaise hein donc mon d'origine sénégalaise mon fi mu ne gars Newcastle d'Allemand, moo koy Newcastle daal les lu mën pour dali euh, recruter ki mooy Malick Thiaw mais Milan fi mu ne nii daal ko jaay et il y a aussi d'autres clubs qui sont intéressés Fodé Ballo-Touré également ancien joueur de Milan AC international sénégalais arrière gauche démb dafa dem match bu doy ba tax na waa Fulham wax donc Fodé Ballo-Touré bi nga il revient petit à petit au top de sa forme Le la wax hein. comme ça au moins on sait que suñu arrière latéral gauche yi dina baax mais aussi arrière latéral droit war est ko lijjanti mais aussi gars yi kii di Abdallah Sima damay taxaw ci moom waxoon naa ko fi ci ki nga xam mooy donc Boulaye Dia wax ko fi ci nga donc Diallo ba ñëpp di leen critiquer mal leen ce sont des attaquants dañoo soxla temps attaquant dañoo bokk la euh, soxla adapté wu gars yi attaquant bokkul ak yeneen poste yi attaquant mooy poste boo xam ne il faut nga jouer loolu euh, joueur bi déjà poste bi mu bëgg a jouer muy benn deuxièmement égal nga ko jox ko temps d'adaptation parce que concentration laaj mais aussi beaucoup de confiance et je pense que ne c'est un joueur boo xam ne bu ko nee ni mérité na ñëw équipe nationale du Sénégal ñu jox ko chance man comme je dis rek équipe nationale war nañu ko tëj kenn concurrence dëggantaan moo faram dëggantaan boo toogee ñaari weer nekkoo en forme keneen ne war a nekk en forme rek dañ la war a yóbbu parce que loolu mooy compétition kii nag également di Naby Keita Naby Keita nee na Sadio Mané sama xarit la sama lépp la maa ko féliciter ci CAN bi mais mom wax naa ko ne ko ñun suñu objectif mooy jël CAN parce que man mi di Naby Keita bëgguma jéxal sama carrière te gagné wu ma benn trophée et que lool moy sama objectif et que ñun nak équipe bu nekk suñu kanam muy Sénégalais ñëpp on est prêt à jouer avec eux mu nak nag Sadio li def euh, xamna moy donc ci walum football man moy sama référence ci lu moom laay top bëgg def lu ni mel et que c'est une fierté gis aussi Sadio Mané réalisé li mu réalisé Sadio Mané également a gaay deux pas de marquer l'histoire parce que Sadio Mané n'y a de match moko déssé pour moi. am 100 au niveau de l'équipe nationale du Sénégal le Sadio le cher Mané l'enfant de Bambali l'enfant du Sénégal le joueur passé par Génération Foot le FC Salzbourg et Liverpool aujourd'hui à Al Nassr mi nga Sadio Mane qui aujourd'hui est la tête de gondole du football africain mais aussi du football sénégalais on lui souhaite tout le bonheur du monde gars nak li mo nekkoon information ñu jox c'est toujours un plaisir de vous servir di ñaan on ah gi ñaan on abonne on s'abonne on s'abonne en masse ci TV bostilien bi dem seetaan ci Baba Show pour ñu bëgg a yokk seen xam-xam ndax football do information kese yokk suñu xam-xam ci la bok pour les passionnés du sport surtout jigéen ñi parce que fi gis na ne jigéen ñi seetaan sport bi également bari nañ ja ngeen jëf